bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu doomu Sénégal mën a féete ci àdduna bi du nu seetaan ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko jàmm macha allah yàlla dolli itam jàmm ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi rawatina sunu président directeur général ak njaboot gi yépp macha allah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara yéen ñi toog itam jàkkaarloog ñun moo xam fu ngeen mënti toogee ñii ñu ngi ci bureau yi ñu ngi ci bërëbu euh, fajukaay yi ñii ñu ngi fu ne ci àdduna bi daal ñu ngi leen di wax bi bisimila leen bisimila leen wax dëgg yàlla di wax rek ne ñoo ngi leen di sopp macha allah di kontaan ci ànd gi nu baaxoo di ànd ak yéen beral nuyoo ñi nga xam ne itam ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen nemmeeku di sukk seen wet di leen ziyaara ak respect gi ci war yëpp macha allah ndax loolu rek ngeen yelloo seen liggéey rafet na yàlla na leen yàlla fay yàlla yàggal seen taxawaay ci kanamu njaboot gi bu nu waxee kilifa diine yi kilifa aada yi xel itam dafay dem ci ñi nga xam ne ñooy sunu ay xalifa généraux ñu ngi leen di ziara bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla macha allah toogaay gi wér te yàgg yal na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy demee itam ba tey seeti ñi nga xam ne ñooy waa jàngo bi ñu bokk réew mi ak ñoom gis ngeen ci biir Sénégal suñu dëkkandoo maanaam suñu dëkk dëkku dëkk ni ñu dëkkee ak sunu mbokki chrétiens yi lay wax wax dëgg yàlla dëkkuwaay bu rafet la ñu dëkk ñu ngee ñaan yàlla yàlla saxal ko dugg itam ci biir hôpitaux yi clinique yi ak dispensaires yi di leen wax rek salaamaaleykum ñoo ngi leen di nemmeeku di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla mi dara tewul ci màggaayam ak tolluwaayam dayoom macha allah yal na yàlla yokkal leen jàmm yàlla wéral leen bañ a tëral kenn képp koo xam ne itam da nekk au des malades ñu ngi lay ziyaara di la massalu coono di la wax ne rek macha allah fi nga teg sa tànk daal baax na ndax ndéem nit kuy dox soxlaam dafay soxla ku ko gunge sàkkatu mag ku toog mënalul boppam dara bu loolu weesee léeg-léeg dinañuy dund ba ca yàgg ñu yëgal ñu feebar boo xam ne boo dee seet ni ma koy waxee saa su ne tuur wey rëy rek waaye ci kanamu sunu borom mu faj la te yàggal la fi macha allah ci jàmm du dara ci moom kon yal na ko yàlla defal képp koo xam ne wax dëgg yàlla mu ngi ay maladie chronique yal na yàlla baaxal nu macha allah. ñu dugg itam mbokk yi ci wax dëgg yàlla ñi nga xam ne itam caabi daf leen féete gannaaw ñu ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara di leen massalu coono toogaay yooyu. yàlla mooy dogal te lu mu daga dogal rek ñu war koo nangu yàlla nañ ko gën a nangu macha allah toogaay yooyu du ngeen ci jëlee lu dul yokkute ndax dina leen permettre wax dëgg yàlla ngeen méditer bu baax a baax a baax te ku wax méditation rek daa dee wax yokkute ñu leen di wax ne yéen a ngi seetaan seen émission wareef xel itam dafay dem ci ñi nga xam ne dañu baaxoo woon di ànd ak ñun tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ku ne di nga am sa wasila di nga am sa guide di nga am koo xam ne mooy sax sa inspiration sunu wasila yi nga xam ne dañoo dëgg dëddu ñu ngeen ñaan yàlla yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe macha allah xel dafay dem saa su ne ci sunu maam maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ñu soppoon ko lool macha allah doyaluñu ci moom mu dem waaye ba ngi fi dara dara dara dara te li may wax sama waa ji toog du ko weddi xam na ci dara kon boo ko taalibe Cheikh Bass Abdou Khadre maa ngi lay ziara jaajëf euh, Eva ñu ngi lay ziar bu baax a baax mhm. ñuy ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp mhm. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdou mhm. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér moog taalibe yëpp ak jullit yëpp di ziar waa Pire Sañoxoor Euh, sunu sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé mhm. di ziar monsieur le maire Serigne Boub ak mhm. Baye Bado Dieng mhm. moom parent Jibi Diagne ak Serigne Baye soxnaam fii ci cité kër góor gi ak sunu imam ba Serigne Moustapha Ka ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar waa réew mépp di la nuyu di nuyu imam ak yëpp di la laaj mami moom mami moom dafa voyagé xaw ma parce que mami yaay maître am de yàq mi yaa ah, wala ne woon na ma dafa am pa dafa am ko yaa gën a xam ne bu mami doon dem Amérique fii la ñu waxee ne day dem Amérique daal dina ñoom Sénéba ak ñoom dimbali ma ñoom Kubra ah. mbokkam yu baax yooyu da leen ko ah? da leen ko waxagul dafa dem Amérique am na visa de 10 ans lañ ko may mbaa du dafay day daal di dem sëy yi ah, gàddu xaw a <laughs> di nuyu waa France gépp waa Évreux ñu ngi lay ñuy wax di nuyu bu baax surtout waa Amérique waaw ñu ngi kontaan bu baax a baax suñu xel itam ci baaral africain suñu xel dem ci baaral africain ndax dafay sunu xarit wax dëgg yàlla léegi saa yi ñu jokkoo ak moom lu yàgg yàgg yàgg mm-hmm. te bu fi teewee itam mm-hmm. mm-hmm. a ngi la ñuy demee ngóor bës a ngi fi toog nee naa ma dee wax turam damay indi tur yu bare damay ñu naan ko inspecteur dem naa ba ne ko douzième gaynde gaynde nga waaye nag léegi saa bu ma ko dégloo dama ko naan yow yaay ngóor bës ca njalbeen bu nu indilee thème dañu ko naan déedéet lii mënta ne waaye bu nu xuusee ba ca yàgg dañuy daal di gis ne li mu wax yépp macha allah dëgg la ajaratu mami Linguère itam dinañu manqué tey pour journée bi balaa ndoy baan naan dem na Amérique fan see commencé jaaxle demul Amérique dara mi ngi fii ci dëkk bi du duñu moom dafay koo xam ne bu banqué tuuti day daal di sangoo mbàjj daal di affiché feebar mi yanduur xam na ci dara kon mami Linguère ziar nan ko di ziar itam ki nga xam ne dafay soog a taal teleem te jàkkaarloog ñun ñu ngi koy ziara bu baax a baax di wax ne thème bi euh, thème la boo xam ne thème bu rëy la ndax bu nu waxee gore ak ngor nga am maanaam nga nga doon gor doon gor nag ah ñenn ñi daañu wax ne yomb na ñi ne yombul yomb na ci kaw boo boo doyloo yomb na ci kaw boo nangoo yi yàlla dogal yomb na ci kaw boo yattalee sa gis-gis di nga dese nekk gor nga nekk gor gor nag du changé moo ko oor a yem jamono bu mën ci am rek fa mu tollu lay tollu na mu mel lay mel dara du ko soppi doomu aadama dañuy wax ne boo ko tegee ci situation nga koy soog a xam waaye doomu gor dara du ko changé macha allah lii sunu maam Maxtar Seck euh, Mboro doon wax rek nee na gor su gëm yàlla dara du ko soppi ndax dafa gore ba noppi daal di gëm yàlla kon boog yàlla na nu ko yàlla def macha allah bu ko defee ci ñun mu baax diggante yi bare mbokk yi mu ngi yàqu dara yàqu ko lu dul nga ànd ak ko warut a àndal maanaam nga ànd ak nit koo xam ne dafa gore di moo xam ci liggéeykaay la moo xam ci bokk la moo xam ci dëkkuwaay la moo xam fu leen yàlla boolee rek boo àndee ku mel ni Eva te gorewul wax dëgg yàlla ni ko Ndiaye loo Ndiaye di waxee ñaar ñu ànd nee na te bokk nu jikko ñaar ñu ànd te bokkuñu destination yàgg-yàgg dañuy tàqali ko waaye yal na yàlla boolenu tey ka nga xam ne itam dafay safaanu saa su ne yal na ko yàlla jubbanti ndoy baan gore yombul de hmm, gore yombul mhm. gore gore lu jafe la euh, fan yii yëpp ñu ngi koy wax euh, ñu ngi nuyu sunu sunu tonton Atoumane mi fi ñëwoon démb wax na mhm. ci ay wax yu am solo mhm. mu doon gore daal ni ma la ko mën a expliquer mooy gore gore mooy lislaam dëgg la gore mooy di mooy mooy mooy mooy diine mhm. tey ji loo am am diine te gore woo mhm. sa am diine des na est que loo mën a mën a julli julli mën a wérd mhm. mën a jàng alxuraan mën a jàng xasida gore woo sa sa sa julli euh, des na dëgg la loo rëyib juddu rëy rëy juddu waaw lool xam nga dëkk bi moom da nga saa ñu ni borom juddu bu rëy baag yooyu soo gorewul sa rëy juddu euh, des na dëgg la loo mën a dox mbokk Mm-hmm. te gore woo soog mm-hmm. soog soog soog ndoxu mbokk des na gore nit ku normal nit ku baax mm-hmm. ñu naan su lu ñuy wax sax baax te gore woo sang baax euh, sang baax des na dama lay jox benn benn benn exemple boo xam ni loolu ca jamono yi jamono yi maam la damay dégg mag ñi di ko nettali ñu ni dafa amoon ñaari xarit yoo xam ni ñoo juddoondoo daanaka nekk ay seex ci koñ bi ñëpp xam leen ni ñaari xale yu góor yi ñooy ànd ñu dem ba takk soxna jot mu munu ko ñun ñaar munu ñoo takkandoo na nañu jàppalante yow kenn ci ñun dem labati maanaam ñuy dajale li am ñaari xarit yi dañuy dajale ñu am dem di labati benn xale bu jigéen pour kenn takk dem kenn kenn kenn ki ñu jàppale ko ku ci nekk jàppale sa morom daal soo liggéeyee ñu dajale ñu am dem labati ba takk jot ñoom ñaar ñu dajale li ñu am kenn ki dem takk soxna si biñ takkee soxna si yow pare si soxna si sëy si ci suba sa kenn ki nga xam ne takkul moom ñëw daal ni xarit bi ah ñu ne da man ñun de dañ ma dañ ñëwoo par exemple dañ ñëwoo ngaay mhm. wala dañ ñëwoo pir nawet bi euh, asamaan euh, bët sebbi na nawet bi ñëw na mhm. te dañ ñoo woo ca tool ya pour ñu dañ fa war a def ay weeri weeri weer maanaam mhm. suñu jiyee ba ni ñuy déqee fa la ñuy nekk te dañoo soxla jigéen gu ñu toggal donc suñu soxna si nga xam ne maag yow ñoo ko ànd labati dem takk ko dañoo bëggoon nga abal ñu ko mu ñuy toggal foofa ca tool yi te ay weer lañ fa nar a def borom soxna si daan ni kon yóbbul kii sama soxna sa soxna la yóbbul. te mhm. boobu ndaw waa ji consommé gul sax mariage am. est mu jox ko jabar jabar ji def fa ay weeri weeri weeri weeri weer ba ñu ba ñu ji ba déqi ba indi ba indi bagage yi waa ci ci ci ci maanaam lañ ji woon ñor ba ñu indi ko ci dëkk bi. Mhm. Mhm. waa ji ñibbi si indiwaat jabaru waa ji ni ko sa soxnaa ngi nii sant nañ ko gërëm nañu topp toppatoo nañ toggal nañu indi ko yëpp delloo ko ko ci suba ga waa ji jébbale soxnaam est-ce que waa ji kontaan ci soxnaam mbokk yi kontaan ñëpp kontaan ñuy laaj ñaari xarit yooyu noonu kan moo ci gën a bore mhm. parce que su doon jamono jii tey jii mhm. góor ñaari góor yoo gis ñu ànd li leen di tàqale mooy jigéen wala xaalis mhm. jamono yooyu da ngay gis jamono maam yi nga gis ñaari nit ñoo xam dañuy ànd kenn ki jël alalam jox keneen ki pour mu defaru mhm. mais jamono jii tey jii su fekkoon loolu ab def nga benn ñaari nit ñuy ànd kenn ki woo ab na jabaram sox soxnaam ni ko kaay jàppale ma ci lii mhm. te gis na nañ labate xale ba mhm. dañoo war a takk jabar bàyyil ñu ñu labati lu ñu am bokk ko dem labati soxna takkal la indil la mm-hmm. nga dem ba jékki-jékki ndaw si so kenn sa xarit boobu soxla soxla sa jabar ji yóbbu ko sa tool yo togguloo ko indilaatal la ko sañ et suuf dara jotu ko dara wokk ko dëgg la loolu tamit loolu jamono jooju ak jamono ji bokkul mm-hmm. li naan alalu gola ca lex ba mm-hmm. tey soo ko defoon tey ji say mbokk yi njëkk a bañ yow yaay sax yow sa bopp yaay njëkk a bañ naan est-ce que wóor na dëgg la est-ce que wóor na. dëgg la donc looloo tax ñun nit ñi naan xarit amatul. ne xarit mi ngi daan am bu njëkk a njëkk. ne xarit saa bu amee problème rek goree dee dikk. goree dee dikk moo tax bu fekkoon dañoo doxal na nu war a doxalee. Mhm. ah wax dëgg yàlla dara du ñaaw. naari xarit yooyu kon doxal nañ nañu war a doxal. dëgg la jàppalante nañ ba kenn ki takk ah, jabar. Ah, kenn ki soxla soxna si ci ku leen di toggalu yooyu mu nga joxe sa jabar. waaw mu def ay weer nga indiwaat jabari jàmbar jooju te dara woo ko ko dara kiiwu ko. ba ñëm ba xarit xaritoo googu mën a wéy su doon jamono jii nag ñii nii ñaari góor foo leen fekk ñu xuloo xaalis la ñu xuloo wala jigéen wala jigéen ak moo leer donc donc te jii soo gorewul nag mhm. jigéen te jii man man mën na leen a jaxase ñaari mhm. xarit yi mhm. wala xaalis ñaari mais su fekkee da ngeen a gore yee ñaar loolu du leen du leen du leen du leen du leen mën a dara da ngay dégg gars yi tamit ñu toujours suñu waxtaan bi day ñëw da gore da ngay soo soo dee bëggee nekk gor da ngay gor day goor ci dara te góor moom pour nga goor ci dara il faut nga gor ba am foo goor très bien boo waxee loolu maanaam nga gor. ba am foo gor nga liggéey ba am foo gor. ne ñàkk liggéey rek sax mën na laa dikkee lu ne mën naa tax doom doy baan may ma ni salaamaaleykum waa savon saf déedéet damay wax salaamaaleykum waa savon saf di wax ne ñu ngi kontaan ci ànd ak ñoom mbokk yi daal numéro téléphone bi changé wul euh, na ngeen ko xamee woon rek affiché nañ ko ci suufu écran bi bu ko defee mën ngeen a woote ku ci woote rek ñu may may la carton bi saabu saf euh, bànneex bi may am tey dafa am koo xam ne man dama koy gëj a gis télé rek laa koy séen xam nga ay ñoom Pape Cheikh Diallo yooyu mhm. mën nañoo toog weer duñu gis gisante wala ñaari weer mhm. waaye tey nag kenn ki moom sax dama am chance euh, nar a bokk ak moom plateau bi mhm. surprise lay doon ci man waaye du doon surprise ca ñeneen ñi ndax tàmm nañ koy gis mos nga gis ñoo xam oh, bari na fi <laughs> bari na fi torop de buñ ma nee léeg nga dégg ku la ne nuyul ma président Youssou Ndour boo ko gisee ne ko ma ne ko fexeel ba ma gis ko man léeg-léeg ñun ma nuyul ma kolos kolos <laughs> kolos dinaa toog un an demi gisante mi Ah, moom moom ni muy waxee lan la hmm. machine la bu mu def ci moom wala kolos ndaanaan la de ah, <laughs> pire pire ndaanaan dafa yor style boppam moom moom moom jàmbaar jamonoy DLC xam nga waaw gor kolos kolos ah, kolos kolos <laughs> kolos la am na am na benn waay joo xam ne daal mm-hmm. tey tey suspect kii laay joxe de benn waay joo xam ne dafa wax dëgg yàlla nee ñu la la valeur n'attend point le nombre d'années oustaz maa ngi lay ziara et eh, eh, léegi y a de jeunes oustaz macha allah. jamono dafa soppeeku de. Uh-huh. xale yi koo ca gis mi ngay mi ngay góorgóorlu macha allah Eva Tra di wax mel ne moo ko mag mbokk mi bisimilah. <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi lay ziar madame Imaam. ñu ngi lay delloo ziar di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf di ziar bu baax euh, Ndoye sama copain. <laughs> Ah. ak euh, téléspectateur yi télévision Futur Média yëpp. dëgg téléspectateur yu wareef. Ah. émission bi nga xam ne nee naa mooy l' émission phare. Mm-hmm. de la télévision Futur Média loolu la yàlla dogal. Eh, mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla sénégalais yi namoon nañ ko. Mm-hmm. nga koor gi ñun ñoo fi ne woon ak Seyda ak Oustaz Mor. Mm-hmm. Eh, fa tabaarakallaahu ngeen ñëwaat ndax ni ngeen ko téye moo fet ba koor ñëw ñu yokk si Ramadan na wareef Ramadan. waaw te loolu yaakaar na wax dëgg yàlla liggéey bu sell bu bu bu am pas-pas mhm. moom moo ko mën a maye ndax bu demee woon neneen bu ñëwee dañuy soppi tur mhm. mais dañ ñëw rek yokk ko si ramadaan mhm. bu jeexee ñu delluwaat si wareef maanaam nga solo noo xam ne rek bu ñu dikkee fekk la doo jug daaw waaw jeex na ndax toogaay bu jekk kon sant yàlla bu baax am mbégte bokk ak yow plateau comme ni ñu ko waxee dañuy léeg-léeg ñu daje nii mais léeg-léeg <laughs> mën nañoo toog ñaari weer man dama koy gëj a gis sax non non non eh? bari na ma Pape Cheikh Diallo ma ne sama rakki xol la ma ko gis <laughs> noonu la de ma ne ko sama tabarakallah kenn amul jot fii moom liggéey rek kenn amul jot dëgg la dëgg jot ah. gor du am jot déedéet xam nga as gor hmm. Euh, maa ngi koy topp fan yëpp ngeen di ko waxtaane mhm. faw mu am si lu mu góor mhm. ngir mën a sauver ngoram mhm. ngor dañ koy sauver ni ñu koy sauver mooy nga góor si dara mais bu fekkente ne góorloo si dara sa ngoro doo ko mën a soobe sa ngor doo ko mën a sauver kon loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la moo tax ñàkk jot nekk lu baax olof day faral di wax ne pëndu tànk moo gën bu gannaaw maanaam ngay dox ba sa tànk pënd moo gën ngay toog ba sa gannaaw di pënd ndax boo toogee di nga wax lu sa yoon newul di nga dugg lu sa yoon xool lu sa yoon newul mais léeg-léeg nga nekk si activité maa ngi yéeg benn oto rek waa ji am nu mu defee man ne chauffeur bi xoolal kii ni muy def mel ni ku gisul oto yi mun na ki bopp bi newu fi mhm. te dëgg voilà absenté ni ndax tës ak yooyu mhm. te loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo góor daal mhm. day tës tës si noonu la ko lislaam bëggee góor day tës tës si day kër kër yi ndax kër kër yi tax joxe kër de loolu la ah, aar li mooy li ma daanele bi muy dugg si laa koy wax. gor da ngay gor ba gor ci dara. moom lañ naan montre yu baax yëpp bokk heure waaw bokk heure c'est très wax boobu wolof wax na dëgg de. waaw loolu wax na dëgg. Mm. xam nga l'islam li ñu bokk. muy suñu diine. Mm-hmm. dafa nekk loo xamante ni yàlla daf ko wax si alquran maa faratnaa fil kitaabi min shay'in nee na sujet bu ngeen yëkkati dem leen wër alquran da ngeen ko siy fekk. jarul sax di jéem a tourner autour du pôle boo de loo yëkkati rek boo demee fekk si alxuraan. maanaam alxuraan kenn du ko tropicaliser dëkk bu mu dem fa lay. fa la bokk fa la bokk. foo dem fa la bokk. allahu akbar si temps yëpp. ak mhm. climat yëpp la valable. Mhm. moom alquranul karim moo tax thème bi ngeen indi ndoy junj ko léegi gor da ngay gor pour mën a gor si dara mais mënoo toog benn place ne yàcc na yasar. Mhm. ba pare bëgg am mënta nekk. xam nga dañuy wax ne yàlla bañul jox ki biddamti yàlla bañul jox ki biddal déedéet ki teel a jóg la xamul nu ma koy def mhm. wax dëgg yàlla du jox ki biddal ki bàyyi ki teel a ah, jóg wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla dëgg yàlla xam nga tey jii mhm. par exemple man mhm. su ma bëggee am dara biddamti war a teel xëy wuti ko ma tëdd nelaw ba par exemple midi Mm-hmm. ma jóg ne dama koy wuti ndooy baat mi jóg sa taali añ mm-hmm. xam nga ne balaa yàlla di wax a man wax ndooy mi nga xamante ni moom moo njëkk a jóg mm-hmm. moo tax ñu ne yàlla jox kii naaje kii teel a jóg la xamul na mu koy def moo tax as gor su nekk da ngay fexe bés bu nekk ngay teel a jóg di kër kër yi macha allah moom la yonent sallallahu alayhi wasallam jàngale woon ne yàlla buy séddale wërsëg yi fajar gi la koy séddale tax la nga gis kuy kaas di ñaxtu di nàngam na <laughs> xoolaat taxawaayam allahu akbar parce que ñettee la jóg fekk malaaka yi séddale bu ñu jógee ñoom la jox xam nga tey ji bu amee ko taxaw si buntu télé bi mhm. par exemple président Youssou Ndour bu fi taxawoon mhm. yor ay enveloppe yu baax maa njëkk dem waaw ku teel xëy mu jox la ku teel a xëy mu jox la <laughs> yaakaar naa sama classe Pape Cheikh ñi nga xam ne dañuy biddamti buñ ñëwee duñ fi fekk dara macha allah waaw léegi nag bul ñaxtu bu boobaa booy booy ñaxtu wala boo yedd da nga yedd sa bopp moo tax gor warul xaar ñu di ko wax yenn yi saa su nekk dañ fexe lépp loo xamante ni farataam la. Mhm. fam la. Mhm. mu jiitu si. tabaarakallah waaw ndax bu ko li ñu naan dimbal na sa fekk. Mhm. loxol borom mais bu fekkente ne da nga ne as gor nga. te fu ñu la fekk yaa ngi tàllal sa loxo. fu ñu fekk yaa ngi tinu fu ñu la fekk yaa ngi ñaan loolu day nekk loo xam ne day xaw day xaw a paradoxal. maanaam gor dafa war a fexe. ba garder dignité am. c'est très important. incha allah jërëjëf dinaa wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax euh, sunu maam Mbay Jaañ mu ngaraaf euh, wuy gi na boromam euh, ñu ngi koy denc ci tudd ca 12h maanaam midi ca ca ngaraaf ñu ngi koy jaale njabootu xaali Jibril Jaañ gi yëpp waa mm-hmm. ngaraaf yëpp macha allah ñu ngi leen di présenté daal suñu njaan muy suñu maam maam Mbay Jaañ bu ngaraaf nelaw na ñu ngeen ñaan yàlla yàlla yërëm ko oustaz bu leen ko fàtte ci ñaan képp koo xam ne daal dëkk nga ngaraaf mhm. képp koo xam ne njabootu xaali bi jaañ nga ñu ngi la koy jaale bu baax a baax a baax macha allah kooku ma mbokk la ndax fukki penc yi ak ñaar la dëgg te man si laa bokk ci payeenu ndakaaru googu ak njaañee nag ndoo yéen yëpp macha allah kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla suñu nga ciy bokk itam. Ah, maam jigéen pay ah moo jur Momadou Seck. Ah. Momadou Seck moo jur Abdourahmane. Ah. Abdourahmane moo ma jur. kon man payen googu laa bokk maam mbëkk pay moomu sama caatu maam moom lañ ko tuddee mu ngi fii sa wakkaam bàjjen maam mbëkk ñu ngi koy nuyu bu baax la Adja mhm. waxee loolu xel dafay dem itam ci njabooti eh, sunu maam maam Yaxya Diop waaw ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ziar jaale jaarale mbir mi ci loxo sunu baay eh, Papa Ousmane Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax macha allah di ziar ay soxnaam doy baan indi nañu nag thème bu am solo moom dafa ñëw rek sax bokk ci ndax doon nañu suivre. muy ngor ak gore. nga am gor dafa am solo lool mbokk mi yéen ñi ñuy seetaan yéen ñu ko gën a xam mhm. damay wax saa su ne man ni nit bu goree dafay am aisance mhm. nit bu goree dafay daal riche mhm. riche nag bu ñu ko waxee ñi mel ni Eva dañuy gis ne tabax nga immeuble dañuy gis ne oto yi bare na dañuy gis ne soxna yu rafet yi bare na dañuy gis ne maanaam xaalis gée ngi ne gàññ waaye richesse bi nit ki am di ko tëddee di ko yeewoo te bu dee dem itam yóbbaale ko macha allah kooku wax dëgg yàlla ngoram la Mhm. nit ki bu nu génnee gore ci moom deseetul dara kon yàlla nu yàlla def ay gor nit a ngi def lu bare lu safaanu loo xam ne dara yóbbu ko ci lu dul gore ji mhm. te ku gore di sax ndax gëm na yàlla mhm. loolu problème loolu laa ko bëggoon a laaj loolu laa ko ah? bëggoon a laaj ku gore di ndax gëm na yàlla question yi ma posé sànq avant muy ñëw ah. nit ki am na diine waaye gorewul nit ki juddu ba rëy na waaye gorewul nit ki ku nangoo jaamu yàlla la waaye gorewul nit ki bis bu nekk mi ngi ci jumaa di julli chaque jour waaye gorewul gore ak l'islam gore ak diine mhm. parce que tey aju alxames la mhm. euh, yéen ñi yéen la ñuy dëgteel jox kii bi kon moom dafa continuer maanaam liggéey voilà bu tey li ma laroon a laaj tey mhm. laa la laaj gore ak l'islam wala gore ak diine waaw macha allah xam nga benn la ñun ñëpp muy tayib muy ñun ma golo dafa toog di seetu yaa ji ne ko looy seetu mu ne ko dama bëgg gis sa bopp mu ne ko jaru ko xool ma ñoo niroo <laughs> golo day seetu yaa ji maa la déggal jàmm da nga bëgg a indiwaat. dégg naa la xool nu ma mel. mu ne ko jaru ko xool ma rek ñoo niroo. golo ñaawul bàyyam la niru jeex na mu ngi noonu. <laughs> li nga laaj lislaam ak gore xam nga jullit doon ko yomb na mais doon woy gëm moo jafe kii ñëw ne jébbalu naa tey jii ñu ut benn association. Mm-hmm. tudde ko association club wareef. Mm-hmm. nga yor carte membre yi di ko jaayee dix mille francs. Mm-hmm. ma ñëw lii tax ma mën a bokk nekk membre yëpp. Mhm. daje si man ma ñëw jënd carte ñu jox ma. Mhm. bokk naa si association bi. Mhm. bu baax waaw kay léegi bu ñu demee ba ci biir. léegi est-ce que in dugg naa ba pare. mais est-ce que règlement intérieur yi respecté naa ko. am nga la gis ku bokk ci association règlement intérieur yu ko respecte mhm. ñu ko di ko rappeler à l'ordre ne kaan del defee nii del waxee nii lii association bi da koy bañ. ainsi de mhm, suite maanaam charte bi da ko teg da ko teg te mbir moo gis. charte bee koy yooyu. Mhm. léegi nag tey mooy li ma wax bokk nekk jullit ak doon woy gëm bokkul. nga boo demee ci alquran dafa différencier nekk jullit ak ki nga xamante nii dafa gëm képp ku gëm jullit nga nit mën na nekk jullit te du nekk way gëm y a des musulmans non pratiquants. tegal loxo ci musulman non pratiquant ñu day pratiquer ñu gënal nag nag wax dëgg yàlla hmm. ndigal ma dalal ki ci li bi ni ko salaamaaleykum allo allo waa salaamaaleykum waaleykum salaam Eva Tra na ngeen def ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi am jàmm bu baax bu baax ça seen émission bi laa bëgg a participer yow rek la ñuy déglu seen bi neex na trop vraiment thème yi ngeen développé moom neex na surtout yow yow moom neex nga ñëpp. parce que li eh. ngay solo affaire yooyu vraiment. sant yàlla sant yàlla alhamdulilah ñuy kontaan bu baax ci yow. Mm-hmm. di la di la gën a ñaanal nag seen émission bi yàlla bàyyi laa ak moom ba ci kanam a kanam. amiin yaa rabbal alamin. li ngeen développé neex na trop. jërëjëf. Mm. ma ma lay wax ne am na sama benn sama benn yaay bu fi nekk sama goro dalaa bëgg mu ngi tudd bu Sali jaata nekk buun Aja na bu Sali Diatta waaw dalaa bëgg dalaa bëgg torop sax boole naa ko ci listu goro yi moom itam waaw dalaa bëgg torop moom dalay dalay bégee fu mu toll sa émission bu dee bu dee mu ngi fi rek du ko mus a tardé sant yàlla instant yi mi ngi école waaye xam naa ne sax boo demee mi ngi la fay seetaan ndeysaan ñu ngi koy fóon waa jërëjëf jërëjëf nuyul ñu Mm, non ñu ngi bi lañ nekk Dakar buum. yaa ngi Dakar. teen mm, waaw. bëgguma nga couper dama la bëgg a may benn carton wi saabu. waaw bien bul couper bu ko defee mi yaa jël la. ñu ngi ànd ak savon saf ak savon extra. waaw ok waaw macha allah jërëjëf jërëjëf. Mhm. oustaz yaa ngi woon fu am solo. y a des musulmans non laa wax. Mhm. tout croyant est musulman n'est pas tout musulman croyant. c'est vrai tout croyant et musulman n'est pas tout musulman croyant macha allah maanaam képp koo xamante ni danga gëm yàlla mhm. yow jébbal nga sa bopp yàlla mhm. nit mën nga jébbal sa bopp yàlla te du tax la mu la sant nga tënku sa parce que da nga wax mhm. euh, li ma bëgg a wax foofu mooy ngor ak l'islam li Mamadou Ndoye Bane laaj léegi gis nga boo demee dama lay jox ñaari exemple yu patent Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day joxe exemple si ku bëgg sa doom daf la jox ñaari critère mu ne la yow mi nit bëgg sa doom ñëw sa kër idaa mm. raaytum man tardawna diinahu wa xuluqahu mm. fa zawijuhu nee na bu nit ñëwee bëgg sa doom nga naw diineem ak ngorom ñaar yooyu nga war a def focus focus mais naan def focus ci mbir diineem ba pare ne la ak ngorom xam nga loo si déggee nit mën na ñëw du bokk si diina ji te du am ngor la preuve. te ku amul ngor maanaam jommul dara. mu fa laa jëm. da ngay kàbbar allahu akbar nekk si jàkk ji. waaw moom laa ko soñoo wax benn ndooy baan nekk sa wet allahu akbar. Ah. nga sëlma làmb sa téléphone. te acte yi nga def yëpp def na ko. mais mais pas euh, euh, Assane. Mhm. oustaz ne yàlla baax te mën a waaw assassin bi rey nit léegi. dem toog léegi kàbbar ñaan yàlla yàlla dogal li mu ñaan. te yàlla gis na ka mu rendi daal di dikk ñëw lal basangam man yàlla yàlla. macha allah c'est xam nga yàlla logique am du suñu bos. wala bu la neexee sax nga ne yàlla amul logique. li ma bëgg a jàngale foofu mooy. Ah. ki nga xamante ne nii ñëw na si jàkk ji def loolu kooku du xam nga doo ko considérer ku dul jullit. mais amul ngor. dëgg la moo tax sallallahu alayhi wasallam moo xam ne ku ngeen naw diineem mhm. ak ngorom mhm. kon ñaar yooyu mhm. dafa war a ànd mais man diine mën na nekk si nit te du am ngor dëgg la boo demee ci bu ñu lay jàngal ponki gëm yàlla dañ lay limal gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi gëm àllaaxira gëm bés ci di la wax di la wax beneen la juróom benneel bi mooy gëm dogal waaw du may sëñ sëñ Oustaz waaw xam nga naa ko ñàkk gore da wax sama xel dem ci dimension suñu borom hmm. sàcc ba sax dama ko épargne xam nga mais dama dem ci suñu borom waaw bismillah xam nga nit ku gore di hmm. day mën a fen day mën a kàcc rek neel kàcc wala te diine damay dégg <laughs> ngeen naan fen mooy bàkkaar bi gën a yàlla gën a ba ab jullit du fen yonent bi solo alayhi wa sallam moo ko wax waaw dafa toog bés waaw soonu mooy def nii ñu ne ko ndax jullit dana naan sàngara mu ne waaw waaye jamono boobu jullit bu bu bu ngëmam oyof la ndax jullit dana njaaloo mu ne waaw waaye jamono boobu jullit bu ngëmam oyof la ndax jullit dana sàcc mu ne waaw waaye jamono boobu jullit bu ngëmam oyof la ñu ne ndax jullit dana fen mu jóg toog moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam ne jullit du fen donc day day day day li nga wax léegi te léeg-léeg mooy li nga wax ku am ngor du fen mooy li ñu doon wax ci Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu gor du jàpp bàyyi du tiit ba fen man kon kay kon kay nit ku goree di soo goree dee mënoo nekk jullit waaw parce que la sa goree di moo bëri tey jii da ngay koo xamante ni day goree di di fen te képp koo xamante ni yaa ngi fen yow yaa da nga parce que fen mooy lan wax lu amul te te te goree di ma dolli leen perte nga say valeur parce que gore dafa ëmb ay valeur papa Assane innama al umamul mhm. axlaaqu ma baqiyat eh. fa in humu zahabat axlaaquhumu zahabu dëgg lool waykat bu arab bi dane mm. askan bu mm. leen di kañ mm. di leen naw di leen tagg jikko moo tax valeur bés bu ñu demee ba valeur yooyu simmeeku nekkatul si askan woowu tur rek a fa des kooki vide la dara desatu fa wolof bi ne rafet juddu rafet ko gën rafet juddu rafet jikko moom moo ko gën donc day confirmer yow li nga wax léegi maanaam tey jii day gis koo xamante nii day nekk si tan lu mu la wax xam nga dem réew mi toll na fa am léeg-léeg am na ñoom ne boo tuddee seen tur ñu ne kan ah, dooral mbaj xam nga loolu musiba la. te oustaz ñaari côté yëpp la bokkee non non non bu bokk ci jàmm kii ñaari côté la bokkee euh, invité naa ko thème de la semaine mu toj ko. moom de voilà xam génn guddi daal di génn guddi ñëw temps yi sax dina ñëwaat c'est mm. li nga yox nii dafa am solo dafa am mm. ay woykat Pape et Cheikh ñu woy mm. benn seen album bu mujj ah, benn woy bu tudd xarit la ñu bàyyi pexe xooma mm-hmm. baay pexe kilifa la goo xam ni amul dara mm-hmm. dërëm amu ko mm-hmm. añee reer ba dañ koy taqale mu faatu bàyyi fa leetar mm. ni leen ma fi lu ni gaañ bàyyiwuma fi alal bàyyiwuma fi dara kër gi ma yor sax est-ce que maa ko moom mm-hmm. waaye am na lu ma leen bàyyil loo xam ne moo ëpp ay milliards mm-hmm. soo dégloo woy bi mm-hmm. loolu lay tekki dem nga ci le laboureur et ses enfants travailler prenez de la peine xaw ma la nag la nag la gis nga loolu noonu waaw la mu leen bàyyil mooy ay valeur loo xam ne kenn du ko téye bàyyi ba faatu bàyyiwul alal bu ñuy miraas de amul dara lu lu doom yi mën a doon ci moom lu dul yar ba mu leen yar valeur yam def ci ñoom mm-hmm. fexe na ba duñu du ñu fenn fexe na ban doon ay nit yu maanu fexe nañ ban doon ay nit yu gore dëgg la loolu donc xam nga gore da ngay dégg wala fi naan gore da ngay soo bala ngay gore da goor ci dara mm-hmm. am na ci ñoo xam ne gore gi dañuy goor ba goor ci dara maanaam nga ñafe comme ni ko Oustaz waxe ñafe ba am dara goor ci mm-hmm. di liggéey di ci di ci jaamu yàlla am ñoo xam ne da ngay da ngay goor ci dara mën ngaa góor ci ay valeur maanaam góor ci ay valeur kooku daf lay reggal loolu moo ëpp solo góor ci ay valeur ah, góor ci xam nga tey ji soo fekkee da ngaa góor ba góor ci alal alal ji sooy sangu fee nga koy bàyyi mën ngaa ñëw fekk ñu sàcc ko mais soo goree ci ay valeur sooy sangu ji da nga ko yóbbaale sooy nelaw da nga ko yóbbaale soo dee da ko yóbbaale muy valeur kocc barma kocc barma ne la li nit kii gënee nit ki buy sangu du ko simmi léegi jëlal ki ci nit ne ko bismillah ñu daal dee dikk ci <laughs> salaamaaleykum allo salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. taala wa barakatu. waaw mbay 313. ñu naa leen ziar naa leen bu baax a baax. 313 mhm. ñu ngi lay ziara waay. Thérèse rek la taxaw. oustaz Assane sax mi ngi lay ree. <laughs> ñu ngi ziar. bisimilah waaw parce que euh, ñooñu samay soppe rek a fa toog surtout oustaz Assane moom maa ngi koy félicité waat bu baax a baax. jërëjëf Mbaye jërëjëf. di ko nuyu di ko ziar bu baax di nuyu Ndoye Bane moomu. Mm. ñàkk ci ñaan. di nuyu mami mi di nekkul di ko siyaar bu baax leen nuyu. namoon naa leen lool nag. macha allah ñoo la raw. Mhm. waaye loo xam ne toujours la koy nawloo. Mhm. maa ngi nuyu ñi caabi féete ginnaaw. Mhm. dafa dafa dafa am solo. ñooñu ñu mat a ba wax na ci démb wax bu nekk ci bërëb boobu jabaram woo ko tey jii di ko wàcc di ko wàcciloo boppam. mooy may ma sama baat. la ko fa dugal ba mu koy def ba mu ci ci am na ci wàll woo xamante ne amoon nga ci wàll. Mm-hmm. ndax daan na la jox muy neex. di la cërale muy mm-hmm. neex mm-hmm. nga ciy gis sa bopp. wallaay. tey metti na mu yàlla dogal ko foofu mu dugg foofu. amoon looy xalaat lu dul wàcc wàcce ma wala may ma sama baax. waaw yooyu yëpp ci xeetu xeetu ñàkk ngor lekk saay ne faaw ñuy leeral am na ñoo xam ne dem nañ fa seen seen naf soo leen fa yóbbu seen def lu leen neex jabar yëgul hmm. mais itam am na ñoo xam ne effectivement dem nañ fa te lanu des bokk nañ kook seen jabar hmm. kon jarul woon fekk ca bërëb ba hmm. naan ko may ma baat moo tax jigéen taxawaayam itam daf ko war a seet ndax yomb lañu bonal kay itam xam nga loolu si lan la yóbbu ci lan la ñuy yóbbu doylu doylu ñàkk ngor foo ko gis ñàkk doyloo ko indi moom la sànni salaa salaam waxoon na bu tedd bi alqanaatu kanzun laa yanfadu wala laa yafnaa ñaar yëpp baax na mu ne doylu hmm. mooy le trésor inépuisable doylu si lépp hmm. doylu si li ngay dundee doylu si sa am am hmm. doylu si lépp loo xamante ni yow wër na la lii moomuloo ko waru la nga ne ko fi ñukk ni yekk bu forox te fexe lii gën a consolider ngor lépp loo waxante ak sa moroomu gor nga sàmm ko ndax ñaar parole d'honneur wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana masulan yàlla ne ne kóllëre ak waxu gor yàlla ne ne dama ko noté sa arrache te bu ëllëgee bu ngeen ñëwee danaa la ko laaj ma dolli la xam nga ne xamante bi ñu xamante nii ku jàpp ne la xamoo li xew yéen déedéet yonent bi sallallahu moo tax koo xam xëfës ba xamante ak moom jàppante ak moom ngor seen dox seen diggante rek sàmm ko dafa wax ne al arwaaxu junudun mujannada fa ma taarafa minha talafa wa ma tanakara minha xtalafa mm-hmm. nee na suñu ruux yi mm-hmm. ñu dox ba xamante nga xam ndooy baan ndooy baan xam la nga xam ainsi de suite mm-hmm. yonent sallallahu alayhi wasallam nee na c'est suñu ay am suñu ay ruux ñoo bokkoon démb magasin bu leen yàlla denc kon ruux yooyu bu leen yàlla wàccee si kaw suuf daf leen si ay jëmm jëmm yooyu ñu dox ba daje ndax sàmm kóllëre gi leen yàlla boole woon démb laata tey di ñëw te bu ëllëgee daf koy laaj yóbbu nga ma ci magu démb ya macha allah mag ñi bokkoon na ci li taxoon ñu am ngor luñ la wax fayee ko bor waaw moo tax ma déggoon si Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu mu wax benn bu am solo. Mm. mu ne al xurru xurrun maa lam yatakallam mm. fa ida qulta naam fasbir laha li najaati lwaxdi ñu ne ko lu tax mu ne inna al xulfa damm laa taqulanna ida ma lam turid li cheyin naam ñu ne ko lu tax mu ne inna la baada naam faaxichatun fa bilaa fabda ida xifta nadam xam nga loolu lépp lu mu undu mm-hmm. góor bu xasee ba génn kàddoom tënk na boppam waaw kon léegi nitu tey ñi mel ni Eva Tra foo leen di féetale da ngay toog ak nit. loo xam ne dañ koy def caaxaan. mu lay wax te xam ne namu ca dara. lenn rek mooy yëngal mu tey jii trônu yàlla muy arash. lenn rek moo koy yëngal. dégg naa sëñ Cheikh Almaktoum radiyallahu anhu yal na yàlla yokk leeram tax ñu si barkeem wax ko nee na Sénégal dañu dem bay foye lu muy fen ñu si kàddu gi. nee na loolu rek la nit di def trônu yàlla yëngatu ba malaaka yi tiit ne lu xew yàlla ne diwu sàngam moo fen. kon la bari na. ba pare dañuy signé nag léeg-léeg mel ni ñoom ñoo xam li xew. dafay dee am da ngay toog ak sama genre gi rek benn ci man. da ngay toog ak yàlla mbaa dëgër na rek. mais moo ko fi bàyyi ba <laughs> léegi déedéet dëgëral ko fi bàyyi. yàlla xam nu xam nu moo waral mu doxal yi mu doxal yëpp ba pare ne pat. non ba xam ne yii ñuy def Sénégal yëpp fu nar a yëngal bu yàlla ba waxuma yu France yi nag ak yu Espagne yeeg yu ci yeeg yooyu noonu. xam nga da ngay toog ak nit ah? li gën a garaaw si réew mi soxna Eva. naam nga toog ak nit mu ne kilifa la wala n'importe quelle personne. nga toog ak moom muy wax mu wóor que ne moom li muy wax. naru ko te mënul nekk te du ko def. léegi nag boo dee góor ma wax la ban seetloo ci am. Mhm. moom booba rusul yow yaa nga rus. waaw seetlu nga loolu ndax. fa nga koy xeebee. ndax si ngay xam ne kii ndekete amul ngor dëkkul gore xamul ngor xamul gore. say ka say ka ngor ak gore du fa jaar. déedéet amul ngor gorewul kon ab jullit du fen déedéet gor du fen déedéet xam nga nekk gor dafa metti moom muñ ñoo bokk ndey te bokkuñu baay gor du tiit ba fen du jàpp bàyyi ab nawleen gor moom moom muñ dañoo bokk ndey waaye bokkuñu ñoo bokk ndey te bokkuñu baay ndax dafa metti muñ dafa metti de nga am jëkkër doo ko saxal sa jëkkër di la def yu bon ngay muñ mm. ñu naan la muñul nga am jabar nga tëdd bu guddi mu lay xas ak def ay affaire ngay muñ ñu naan la muñal ngay muñ te jigéen bu lay xas du wut xam nga yooyu jigéen la nag bu ko neexee da ngay dégg ñu ni ay ndeysaan mhm. jabar ji daa gore ba am na ñoo xam dañuy sàmm seen ngor ba xëy faatu seen bakkan bii dee ndax ndax ndax ndax ndax nekk gor mhm. nga ñàkk li ngeen koy waxee ñàkk te mënoo taalal sa loxo mhm. ah mu wóor la ni amoo añ te munoo ngeen dem di ñaan ci kër yi de la rey ci loolu la alquran di wax yaxsabuhumul ja yaxsabuhumul jaahilu agniya min at-ta'affuf yàlla nee na laa yasaluna naasa ilhaafan yow itam yàlla nanu la yàlla fayal ñoo xam ne yàlla nee na mooy li nga wax dañuy buuf si ngor boo leen gisee ñuy dox mm-hmm. nga jàpp ne jeexaluñu dara yàlla nee na te duñu tàllal seen loxo ndax ndax gore mm-hmm. ñaar laa la indil yaxsabuhumul jaahilu aghniyaa mina hmm. taafuf kii xamul da leen di foogee ku yor ndax ngor. ki xamul la yasaluna naasa ilhaafan ki xamul da leen di foogee ku yor. ku mais ñoom ñu ngi ne tekk ndax ngor yàlla neen du ñu laaj du ñu tàllal loxo ilhaafan ndax gore. Hmm. am dinjite dafa am sam benn xarit bu mu daal solu ba jekk di dox benn mer dab ko benn àjjuma ne ko dooma dimbali sarax ma foofu te yàlla tax. Hmm. mu làmb poos yi dajul dara. maire bi xool ko ne ko mu ne ko baal ma de yoruma yaay booy maire bi xool ko ko bokk suuf ne ko sama doom lii bu ko defati mu ku la gis yaakaar la nee na ma boobu ba léegi saa yu ma génnee gàtt gàtt dinaa ngaan naa ñeen fukk tontoo Jóob ñu ngi pootu ñu ngi koy nuyu bu baax tontoo Jóob ñu ngi lay nuyu mu ne ko mu ne ko lii bu ko defati mu ko ba suuf yaakaar te ka mu yaakaar xëy na na mel ne na moom bés boobu te tey jii tonton Diop moom xëy na maire bi fas na fukk ak juróom yoo xam ne bu ko mënoon ooj keroog ooj ko naka bu ko mënoon ooj wuy li maanaam la yasaluna naasa ilhaafan ah. donc ngor ngor gi ñu ngi fii xam nga lu fi nekk soxna Eva mhm. il faut ñuy boob si ngor fii kenn lu yorul lu doy mais dañuy doylu ay dëgg la la preuve ku dee yóbbaale ay projet dëgg la ak ay mébét ak yoo xamante ni yeggul dëgg la kon ku doon doyal mhm. sa bopp ngay njëkk a jox bopp giijal macha allah door a jox keneen jërëjëf euh, oustaz Hassan Seck ñu ngi kontaan lool macha allah ci recevoir la tey waaye nag bu ñu waxee wareef itam xam ngeen ne savon saf daf caa jàpp ba mu doy damay daal yoon du régime daal di waxaale sax nag maay boutique kontaan naa ci yéen ngoone di boor itam maa ngi koy nuyu anta na ma bàyyi Mia yow na nga ñëw ak seen bismillah <laughs> jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñuy kontaan itam ci ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan euh, ci internet bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ziyaara di leen wax ne yéen itam bu ngeen bëggee laajte rek man ngeen a poser seen question bu ko defee itam dinañu gën a mën a waxtaan ak yéen daal di tontu ci laaj yooyu euh, Ndoye Bane Euh, nee li nga gis ci dëkk bi dafa laa jaaxal ndax dafa am wax yoo xam ne dañu koy wax ci suuf am yoo xam ne dañu koy wax ci kaw. Hmm. mais mu mel ni léeg-léeg nga diggaaleeg nit te doxalul na mu war a doxee. Hmm. ah loolu tam daf lay jaaxal bu baax. xanaa xamoon ni ngor ci boppam. Hmm. mooy àdduna. est-ce que. damay wax ci contrôle oustaz. ngor mooy àdduna. ngor est-ce que jiituwu fi diine. ah kay. ngor. moo fi jiitu diine. avant diine di ñëw. Euh, nit ñaa ngi fi woon di di dund leneen. ba pare gore. dëgg la te duñ la wax mais man ngor bi may wax ba ma bëgg ñu ñëw ci ustaas. mooy su xam nga alxames yi daa war a tàng. Euh, ngor yi ci biir kër yi. alxames dafa dafa war a tàng war a tàng ndax lundi la ñuy ñëw. incha allah <laughs> am jabar. Mhm. ngeen nekk jeune. Mhm. ngay liggéey def ci moom lu ne. Mhm. di dépenser ci moom lu lu mu joxoñ nga dagg. jënd kër dugal ko. su dee liggéey nga jàppale ko ci liggéeyam di jàppale ay mbokkam di ko jàppale génne ànd di jurum njaboot mm-hmm. ngeen doxal ba ca kanam ngeen mm-hmm. sëy vingt ans vingt cinq ans mm-hmm. la nga mënoon mënoo moo xam nga tële ci ndigg moo xam nga tële ci poos mu wor la sa jabar wor la moo xam war la day dalay dalay ñaan baat génn wala moo xam ba fa nekk ci biir kër gi war la te waa mbedd mi xamuñu moo tax souvent may wax naan nit ñi nañu bàyyi di wër di gërëm jabari jàmbur jabar na li ngeen di gis nii ci mbedd mi naan diw ni mu baaxee peut-être ak mbaaxam jëkkëram moo ko mën a xam jabar tamit moo mën a gërëm jëkkëram mm-hmm. nga gis ñu abandé ko nga gis ba góor mus na ma ñëw fii ni ma sama jabar ji ngay gis ngi ko ko nii soo ma gisee moom nii nga def namm ma dara mm-hmm. ma ba ma gëjee xam lu mu woddoo boobaak léegi ëpp na ñetti at te mm-hmm. jabar ji la neex waaw te jabar ji la neex xam nga paa yi bari ñi ngi ñi ngi dund goree di googu tabax sa kër dugal fa sab jeeg am ak moom ay doom màgg ba nga dem ba màgg ba retraité toog sa kër mm-hmm. waa say sa jabar ak say doom di la jaay goree di gu bono bono bono bono bono bon mm-hmm. sooy lekk dañ lay ber soo mm-hmm. feebaree da ngay jël sab sët baa yi bari ñooy dem fayee ko ci seen pension yi yeewu fajar teel dugg ci kaari gëjëg gëjë gi dem fayee ko te am ay doom yu leen mën a gung dem gunge doom yi fii teg seen yaay paa bi ñu ber ko nee ñu ci bari ñu ngi dund goree di ci biir kër gi soo tëlee nag moom moo ci gën a garaaw maanaam su riiti ga daggee moom booba ci gën a garaaw. mooy oustaz wax la ci gore di yooyu. ci biir kër li ma siy sof rek. mooy li yonent sallallahu alayhi wax. li ma si njëkk wax mooy. gërëm soxna si jàmbur. bi muy wax waxul ku gërëm soxna si jàmbur dana ayyuma imra'atin maatat wa zawjuha radin anha daxalatil janna nee na soxna bu mën a génn àdduna. borom këram gërëm ka si lu neex yàlla. Mm-hmm. nee na kooku aljanaam taxaw na. macha allah këram la wax. beneen bi ñaari anecdote laa ngay nettali dafa am benn soxna bu ma sa décédé mhm. comme ni ñu koy waxee ñu ñëw ne borom këram il faut nga wax pour ñu rob ko jëm ko jëm suuf mu siisu noonu ñu wax ñu forcé ko mu ne ah, sama kàddu du si bëri tey rek laa mës a wax te tontuwuma mhm. te li mu tëdd tax tey rek laa mës a wax te tontuwul boobu soxna si faatu na ñu war ko denc. xam na mu ne tey rek la ma sa wax soxna si tontu. maanaam dafa ne ne mu mënul dara. waaye bu mënoon dara tontu gaay njëkk dem da daan tontu. Mhm. beneen bi dafa am li ma lay wax histoire réelle la. Mhm. benn góor boo xam ne dafa toog benn instant moo soxnaam daal ku nekk dem. dameetuñu noonu. doom yi màgg di si dox di si wax sonal paa bi suñu yaay ji fu nga jël ko wax wax paa bi maar woo leen ñoom ñëpp ñu toog. mais mën leen est-ce que xam ngeen ne yéen ñii ñëpp. ay doomi junni ngeen. doomu junni. junni ngeen. maanaam ku ca ne junni la. mu ne leen lu xew. ñoom ne ko luy loolu mu leen ku si nekk bi nga laa judd dama jël junni jox ko sa yaay ngir mu jote ak moom ngeen judd. da ko daan fay. te soxnaam la ñu may ko ko si farata si yàlla ak sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour wax la xam nga ay nit suñuy nekk comme niñ koy église bi di takkee. dañ koy dégg. donte la ay jullit lañ mais boo déggee lu rafet répété ko dara nekku si. dëgg la pour le meilleur et pour le pire. Eva Tra yokk ci pour la totalité. voilà pour le meilleur et pour le pire bi ñuy def euh, yeewu leen ak El Hadj Assane Gueye les vendredi dafa am benn jour mu ñuy toon ñu ngi koy nuyu. El Hadj bu RFM bu TFM. Ah. maa ngi koy mu am benn jour mu ne nag ku nekk wax. Mm-hmm. way bii la gën a marqué di wax si mbëggeel te Youssou Ndour way ko. Mm-hmm. boobu xaaj Bekaay Mbaye lañ invité xaaj Bekaay wax. ku saf xorom invité ngeen ku saf xorom Abdou Aziz wax Pape An wax. mu ne ma yaa si des mën a fay kii mu a ma waxal ma ne ko man daal bi su Ndour di wax lang ku ne langal ak sa waay. bu neexee bu méttee. falaa laa jëm mbëggeel la. mu ne ma oustaz kii ma ne xam nga la moo si intéressé bu neexee bu mettee dund boo gis couple boo gis. Mm. day am ay o day am ay baax mais ñi ko mel ni Eva Tra day bëgg mu neex rek. mënta nekk mënta nekk d'accord xam nga lu tax yow da ngay yeewu. Hmm. yow rek sa kër. Hmm. nga nekk sax hôtel cinq étoiles wala si benn palace. Hmm. nga yeewu du yàgg kenn. nga nekk en mauvaise humeur. waaw koo xam ne yàgg sa bopp rek yow rek yow rek. filoo sa bopp. day bëggoo dara ci sa <laughs> ku ne lay dal bëggoo sax seet déedéet nga xëy rek mer te kenn gisoo kenn ñëw waxoo kenn yàgg sa bopp nekk en mauvaise humeur li nga wax ni yéeme na de imagine nga dëkk xam ne bokku leen fu ngeen juddoo bokku leen environnement bi ngeen màggee culture yu wuute culture bokku leen ñi ngeen yaree ngeen dem ba yàlla dogal seen diggante sëy am si ngeen sëy boobaa xam nga leen moo leen war ku nekk gor ngor gañ la tàggate boo ñëwee nga àndaale ko mais bu fekkente ne dafa neex nga ne nay neex nay neex nay neex nga xëy mun a xari nga wane gannaaw wala sol jiin sol baa teg si jiin wodd teg si ñetti sër mm. wan sa boroom kër gannaaw parce que lan da doon xëy xëyatul ah loolu liggéey liggéeyatul jaaduwul dafa amoon amatul dafa nangamoon wala xattaa sax nga nekk si biir sëy bi mm-hmm. bàyyi ko fa nekk si leneen mm-hmm. noonu valable si ku jigéen ki mm-hmm. noonu la itam valable si ku góor ki il faut ñu waxante ko maanaam atte gi benn la léeg-léeg da ngay gis góor ñoo xam ne dañuy am soxna mu mel na mu war a mel ñu takk ka na mu te bañ koy bëgg àdduna da ko doon wër ndaw sa ne mukk diw rek. ñu may la ko si faratas yàlla sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga daj si lu ne. ñun ay nit lañu dañuy man dañuy télé jamono dox ngay dox di dox ba jamono ñëw suñ borom teg ko nattu mu feebar wala maara day taali am na jabet amputé nañ ko moom soxna si de moom soxna si feebar bi mën na ko nangam ak nangam yow na meloon moom intact macha allah poos bi diis na yaa ngi am wér gu yaram yaa ngi bëmax sa monde comme ni ko xale yi di waxe nga ne ko fi ñukku ni yàkk ba forox ak ay doomam ak ay doomam abandonné leen di toltolaani nekk si li la neex yow wor nga sa nawle te bu ëllëgee suñu borom dana la ko laaj dana diggaale ak yow innal ahda kaana masulan parce que sëy pacte la yàlla nee na pacte boobu nga si ñëwoon danañ la laaj yow mal xiyaam ndax soxna soo suñu la mayoon wala sa boroom kër ba bañ la mayoon ngeen nekk ànd àndu gor ak àndu nawle lan moom moo indi rupture bi seen diggante te ku mu jógee si moom di nga xam ne yàlla julli la santaane xam nga lu tax hmm? yàlla bu buñ ko tooñee dañuy jéggal moom moo ko wax boo leen ma tooñee ne ma baal ma ma baal leen moom la waxoon gars yi si jamono yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko sa gaa yi wa ma kaana allahu mu'adhibuhum wa anta fihim mhm. yàlla ne ko du ma leen mbugal mukk tànk yaa ngi dund seen biir saxaaba yi ne ko ridwanullahi alayhim ajmain boo fi jógee fu ñu jëm mhm. yàlla ne ko ma kaana allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun mhm. yàlla tegal na ko si nag boo fi jógee sax buñ ma toonee jéggalu ma man dootuma leen duma dama leen di jéggal kon loolu am si rafet njort. Mhm. on est optimiste léegi nag tey jii man bu ma tooñee Evatra wala sama kóllëre gii dox si diggante ak Ndoye Bane ngor gi ñu waroon lëkkale man ma fecci kóllëre ngor boobu noonu. su ah, ma ko dañuy dem yomal xiyaam yàlla croiser les baraa nga naan yàlla kii mu ne la sama yoon newu si rek la sa problème moom. bu la jéggalulee man sama yoon nekk si. j'ai pas mon mot à dire. kon mbir mi léegi saay face to face la maak yow sunu borom toog nag. Mm-hmm. allahu akbar moo tax ñu ne la benn bàkkaaru njëw jëw. jëw si diggante nit ak nit la. Mm-hmm. moo gën a garaaw fanweeru njaaloo wala wala mooy équivalent wu fanweeru njaaloo. Mm-hmm. léegi nit day nekk si koñ bi. Mm-hmm. nit ñu am doom hors mariage. nga nekk sa yow ñoom benn lañ def yow saa yoo leen nga am fanweer ñoom ba ñu def benn yow nga am équivalent wu fanweer ba. nga rom ñu rombaat la nga waxaat leen nga amaat équivalent su fanweer. maanaam di nga dem ba romb leen ñoom ci bàkkaar. ñoom bàkkaar ba ñu def benn. yow boo ko waxee benn yoon jëw leen yow am nga fanweeram. yee. ku gën a seddale. Mhm. Ah. ki ñu war a dóor téeméeri yar. waaye yéen yéen bu leen di gëj a wax. ndax ñu mel ni Eva Tra bu leen di gëj wax de. wala juróom-ñetti fukki yar. allah léegi ñu multiplier ko par 30 yow. moom benn lañ coono yow bu ñu benn ak multiplier par nga ma may ma ma jël ko ci ligne bi ba pare. <laughs> salaamaaleykum mbokk mi ñuy woo. maaleykum salaam. ajaratu ah, waaw maa ngi déglu thème bi. dëgg la. xamante nañu lu yàgg nag mais Fass. mu ne. Fass Fass. ah nga ni. man xam naa la bu yàgg Fass. ah kon yow sama mbokk nga. Fass ak Medina kay boo ko waxee rek wax nga Eva. wax nga dëgg wax nga dëgg. <laughs> ndeysaan wax nga dëgg. ça va. ça va alhamdulilah. man euh, yàgg naa si ligne bi mais jaral na ma ko parce que nu mu tudd waay. <laughs> dégguñu la bu baax. waaw waaw mais Ndoye Bane moom na ma contacté. bu ñëwatee France. na ma hmm. <laughs> na ma woo parce que fii daf fee boo xam ne man mii sama bopp daf ma concerné. ah. waay. seet teet teet teet teet. lu ñu la wax ci France rek def na. Mhm. jigéen ñi. Mhm. voilà. oh. d' accord incha ba bàyyil ñu sa numéro à la régie mbokk mi ñu ngi lay nuyu bu baax waaye. ma nuyuwaale ba xaw jéen sama doomi bopp la moom ma nga fas wax dëgg yàlla ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, euh, Ndoye Bane dañuy wax dëkk dëkkuwaay bu balaa muy rafet sax ay gor sekk ka waaw waaw dëkkuwaay li koy rafetal hmm. dangaa gis bu jëkkaan euh, sa maam dafay nekk wala réew maamu keneen hmm. ci jamono bi ñu toll nga naan diw sama cousin la hmm. booba seen wayjur yi dëkkuwaay bu rafet bi ñu dëkk dëkkee woon maa ngi koy wax sànq ca njalbeen dafa rafet ba nga xam ni da ngeen a jàpp ne ay bokk ngeen dafa am si benn xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax si nga ma yóbbu ci foofu nga ma yóbbu dafa ne lawla atfaalun ruda wa suyuxun ruka wa bahaimu ruta la sababtumul adaba sabban nee na bu fu dul woon parentel di nàmp ak ñi nga xamante ni dañu dem ba magal di rukoowal di sujootal yàlla ak mala yi nga xamante ni dañu nekk ci àll bi di for lu ñu dundee. Mm-hmm. yàlla daf leen di alak. yàlla daf leen di waaw xam nga lu tax parce que pacte bi nga xamante nii moom la moo ñu boole woon ak moom mm-hmm. yëpp nañ xool évaluer rek fi nga toog vite fait yëpp ñun fecc nañ ko ndax goree di et pourtant pacte boobu ñun ñëpp ñoo ko jëloon yàlla bi mu sàkkee ruux yi comme ni ma la ko waxoon sànq si njëlbeen. def leen si ay magasin ya laata muy créer benn jëmm di si sox ruux muy suñu jëmm maam Adama alayhi salaam. dafa dajale ruux yëpp ne leen ndax duma seen borom. laaj leen alastu bi rabbikum mmh. dama bëgg laaj leen ngeen tontu ndax duma seen borom ñëpp. sama bos sa bos bu firawna bu haamaan ñépp ñëpp ne ax mhm. yàlla nag ne ku nekk seedeel ne sa moroom wax na loolu waaw ku nekk seedeel sa moroom mm. yàlla def ñu si ay jëmm léegi bi mu defee si ay jëmm wàccee ñu lu ñu def mhm. lu ñu def li ñu njëkk def mooy rompre pacte boobu nga xam ne lañ diggante liggaale woon ak suñu borom kon loolu rek doy na ngir yàlla mbugal ñu léegi yàlla yamul foofu léegi nag mu ne ku si nekk kóllëre ak ngor gi nga séqa ak sa morom na nga fexe ba la ko yàq bu mu jóge si yow la kii sama mbokk la kii nangam a tey su ma jógee ne sol sama dàll ne damay seeti Eva tey jii su ma waroon dund soixante-dix ans par exemple deux de temps wala quatre heures de temps yi may déplacé wu di ko jógee sama kër di ñëw sa kër ba kër balaa ma delluwaat sama kër sama compteur dund dañ koy bloqué duñ ko comptabiliser si li ma war a dund nombre d'heures yi ma fa def yëpp dañuy bloqué sama compteur dund moo tax dox kóllëre ak sàmm nombre d'heures ngay wax fa lu rafet nag def ko fa luy defar te yàlla rek tax dañ koy bloqué mu nekk bonus après si yow est-ce comprendre nga ba kër balaa ngay dellu kon loolu du guddal fan dañuy def ne arrêté nañ ko mu yokk nga daal di continuer kon léegi ku bëgg sa fan gudd. promotion. dama ku bëgg sa fan gudd. <laughs> ma di la seet waaw ku bëgg sa fan gudd. del dox kóllëre di ko sàmm. macha allah day guddal fan. diggante boobu ngay dox di dox mbokk ak sàmm kóllëre te yàlla rek tax ndax ngor ak gore xam nga lan moo la siy fekkaat. Mm-hmm. wërsëg bu yaatu. loo fa ñaan yàlla wala boo demee seeti Eva lu mu la ñaanal yàlla defal la ko. bu ma fi jógee dem kër ami say Fall seeti ñoom xayraat lu nu ma ñaanal yàlla na nga jógee si ami amina ay waay Eva mi sama xol sedd na si moom li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne du'aaul mu'min li eh. axiihi al-mu'min ala zahril ghaybi mm. laa yuraddu mu ne jullit wala ki gëm bu ñaanalee mbokkam te yàlla rek tax te kooku yëgul ne sax ne mu ngi koy ñaanal yàlla ruus na di ko delloo ñaan googu te du ko nangu mm. kon wërsëg yi ngi noonu beneen bi mooy day tax yàlla jéggal la. waaw mais kilifa yi nga xam ni tey jii yàlla de leen a may. alal mi ngi ci lu am solo macha allah may leen alal yàlla jog jéggal sàmm ak ngor. kilifa yoo xam ne yàlla da leen a may alal bu baax a baax baax. Mm-hmm. ñu def ay prête non. Mm-hmm. jël sa alal ubbi sa benn compte def ci sama tur. Mm-hmm. jël say oto def ci turu sawaay jël sa yenn terrain def ci turu ee baax nga xëy suba soxla alal jooju nga ñëw laaj ma sama compte man la noo man mosoo maa jox dara tëdd ci laaj la sama terrain nga tëdd ci am na ñoo xam ne dañuy dem ba faatu sax. Mhm. seen doom yi ñëw daan ne suñu ah, sunu tonton diw da suñu xaritu papa loon sam papa ci la ci turam la def terrain bi. Mhm. xaar ñu dem ci moom mu jox ñu ko. Mhm. ñu lànk. prête noo yooyu. donc daal dañ naan xaaw yi xamuñu xaaw yi maanaam tëdd ci xaw gore wane fa gore da gu gu gu gu gu leer nañ. gu gu fës. te te waa ji fu mu dem. ñëpp xam na si xam nañ sa diggante moom. même waa banque ba xam nañ ni xaalis bii mi ngi sa tur. mais waa jii gaañu moo moom xaalis bi mais ci sa la nekk. xam nga gars yi waaj aj màkk dama lay wax lu garaaw si tegal loxo ci waaj a aj màkk boobu ñu dalal ñu dalal mbokk mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum asalaam ajaratu bisimila cavatra naam maa ngi leen di nuyu ñu ngi lay ziyaara macha allah wàññil wàññil télé bi ndax nu mën a déggante bu baax a baax dëgg la dëgg la bisimila bisimila soppe euh, sama Eva Tra ça sama ndoy baan man la mama tuuti maane mama mama tuuti maane Eh, yaay tuuti man maane maane Diop laa koy wooyee. gis nga maane Diop waaw. bisimilah bisimilah bisimilah. maa leen yàkkamti woon naa seen mm-hmm. wax nga dëgg. ndax wéetu leen mm-hmm. dëgg la. Ah, kontaan naa seen bi. sant yàlla yow sunu xarit nga yàlla def na ko. wallaay sunu mm-hmm. xarit seen eh, sama xarit ngeen. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm. ñu ngi waxtaanee thème bu am solo. bu am ngor ak gore. billaahi yéen a ngi waxtaan thème bu am solo. yéen ngi waxtaanee thème bu am. Mhm. allo. ndeysaan. coupé na waaye wax ji benn la xam na nañu yéeneem xam nañu xalaatam. Mhm. ne wax dëgg yàlla xalaat bi benn la. xalaat bi benn la ah, xalaat bi benn la waaw mangoog yi ci dëkk bi. mooy nga wax gis nga la dénkee ka la bu la soxlaa da ko koy delloo. Mhm. ndax confiance. Mhm. am si yow la may ku la neex dénk koo wóolu. kon bu la nit wóoloo ba dénk la. bés ñëw mu ne la la la dénkoon ne dama ko soxlaa mm-hmm. joxe ko ko na ma la ko waxee xam nga sànq ne nga ngor moo fi jiite diine moo ko fi jiitu te muy dëgg yonent sallallahu alayhi wasallam bañ koy tuddee ku wóor ki al amin mm-hmm. boobu lislaam ñëwagul parce que ñu tuddee ko muhammadul amin kuy wax secret moom ngay wax secret kuy kuy kuy dénk moom ngay dénk mm. kuy doxloo nit jàmm kuy defarante ay nit si moom nga jëm ndax confiance boo xamante ni amoon na ko xam nga lu ko mayoon lu ko ko mayoon ngor te boobu lislaam ñëwagul mais bi lislaam ñëwee dafa consolider loolu gis nga kaaba gii ñuy ziyaar yi ko dëgg dafa am buntu am caabi mhm. keroog ba mu jógee Medinatul a ñëw ànd ak gaa yi mhm. Aliyun karamallahu wajhah ñëw sa ko yor caabi ja mhm. ne ko jox ñu caabi ji wala ñu rey la waa ji bañ ñu insisté mu jox ko caabi ji ne ko bu ma paree delloo la ko mu jox ko caabi ji kaaba gi ñu ubbi kaaba ji la fa woon si ay xërëm yëpp ñu génne ko toj ko daaneel ko ba ñu pare waaj dafa ñëw ne ko jox ma caabi samay caabi mu ne ko dara laala la dolle dolleewul du ma la ko delloo tey ñoo yor doole ji dara duma ma la ko jox yàlla yebal jibril alayhi salaam waaj a gëmul de ne ko demal ne sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam na wax ali na delloo waa ji caabi yi gëmul inna allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa ida xakamtum bayna an nas an taxkumu bil adli hmm. ne ko yàlla nee ne ndénkaane yi mooy li nga wax yi ñu leen di dénk ka ko soxla bu ñëwee laajaat leen ko nu ngeen ko ko delloo ali karamallahu wajh ñëw ne waa ji bu dul woon li yàlla wax du ma la delloo sa caabi am caabi yi kaaba gaa ngi ni waa ji yàlla jan mu naka yàlla ji ne nañ ñëw jël xërëm yi toj ko daaneel ko moo yebal léegi malaaka jibril alayhi salaam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na naa la delloo caabi yi ndax da nga ma dénk ba may jox wóolu ma moo taxoon nga jox ma kon bu ma si naa la ko delloo waa ji ne ko yàlla man maa tax aaya wàcc mu ne ko waa ji ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam donc pour wax la yàlla fi mu teg ñu wóolu la parce que wóolu nit ki yombul te confiance xoolal li nga li nga wane noonu rek macha allah confiance wallaay benn yoon lañ koy am si nit du ñaar bu xësee ba dem jeex na mm. lu nit ñi mën a wax lu nit ñi mën a def dina dem mën na relation humaine bi mën na fi des dem lante dikkalante mais kóolute gën a woon sa xel naa sa xol ba ndax ngor goo ko wonoon te jaay sa ngor comme ni ñu koy waxee donte la ngor du jaay mhm. ndax ku ko am doo ko jaay ah ngor loo jaay rek amul njëg kenn mënu koo mën a yegg dara dëgg boo ko demee si waxin ba jaay sa ngor comme ni ko Marianne Siva di waxee mhm. yow jàppal ne kon desere wootoo dara amoo ko woon sax mooy li ma la waxoon sànq rek gor sa wax ja léegi nit ñëw na ne la sama alal jii kat dama si bëgg nangam ak nangam denk la mhm. jël sa tur def si dem ba soxlaa mhm. nga toog si nga ne doo ko jox jàppal ne yàlla nee na yow loo sa lekk dërëm boo sa lekk jàppal ne safara ngay dugal sa biir te dara gënul ñaaw di dundee safara mhm. di ko sa njaboot te si gën a mooy nit yi dañuy jël xaalis ba pare dem naan dañ siy def di si ay moquette pour jàkka jeex ay dimbal yàlla nee na yooyu yëpp ëllëgee dama koy buub dugal leen biir safara ndax ñoruma xam nga lu tax parce que da nga war sa moroomu gor danga war gor te ku war gor yàlla nee na bu ëllëgee boo ñëwee ëllëg ma tàbbal la biir safara mhm. kon loolu aspect la boo xamante nii nit ñi aussi dañ si war a bàyyi xel tey jii moo tax kenn ñemeetul dénk kenn kenn wóolootul kenn parce que da ngay toog di dégg ay nit ñoo xam ne démb dañ leen xamoon ñu def nii mhm. nga dégg yu ñu defante mhm. yow da ngay tiit ne est-ce que ndoy baan bi ma jegee su ma ko dénkee lii est-ce que du def ni diwu mhm. wala est-ce que nangam wala est-ce nangam kon ñu bon ñi ñu ngi yàqal ñu baax ñi macha ñu bon ñi doy na ñu ngi yàqal ñu baax ñi waaw ndey ak baay mën nañoo nekk ay góor yow nga juddoo doo nekk góor ah waaw parce que li li liy confirmer sa sa gore kay mooy jikko ji. day am ah jikko ji ngay def muy baax muy bon bisimilah oustaz. ndeyax bàyyi. mën nañ la jur yar la ba nga màgg. nga dem yow mel ne neen. bés bu ne nga dégg ñu ne diwu jurul doomam. ah waaw. doy mm-hmm. baan question la mm-hmm. bés bu ne nga dégg ñu ne diwu jurul doomam. Mm-hmm. ndax lu tax way jur wa la ne woon si moom sa ngor. ak gore ak ay valeur ak yu demee noonu jéem na ba sonn mais nawul sa doom ja tey ji dama la si jox ay exemple yu patent Seyna Omar karamallah wax ja am na benn waay boo xam ne dafa newoon si penc mi doom ji daal lu ko neex lay def kii nag bi mu demee ba télé dana ko yaa ji woon kaani kaani sax na góobal sa kaani nga dem ak moom maanaam nit man nga jur sa doom mhm. mu màgg mel leneen noo xamante ni neexul te yàlla sedda na ne yow lan mhm. xam nga lan ngay def mhm. waslu ax waslu ax mais di nga yar di nga dugal école di nga nàngam di nga nàngam di nàngam di nga nàngam mu juddu xëy na fréquentation xëy na ña muy àndal xëy na nàngam xëy na xëy na xëy na mu dem mel neneen bés bu ne yow tam de la semaine ngay def wala wareef bés bu ne nga dégg wayjur woo xamante ni day joytu loolu man nit dab na ma barki Dembo Njaay na ma sama te mag la maire bi na ma sama doom nangam waxawa ba jeexal na ma facture courant sax man maa koy jënd seen compteur yooyu ñuy jënd courant. maanaam jàppalewu ko ci dara mu ngi soxnaam si biir këram làmp bu buur la sax man la koy xaare amalu mu benn njariñ kon yooyu war nga say waajur te mënoo ko génne itam. foo ko jëmee doom dafa jege xol. dogit la bañ génne. doom res la génne soo am non gis nga nag saa yi saa yi c'est que yii ci dëkk bi man duma la jur mhm. nga doon magum jëm takk sa jabar indi ci biir kër gi mhm. ah may du ma lay dundal di dundal sa jabar duma ko def léeg-léeg sa jabar sax ñàkk maa sopp waaw ba pare soo nga may indi ay da xoolal dama lay génne ca biti. xam nga doo ko dama lay génne dama lay jox exemple pour wax la. waaw ah, loolu tax nag dëkk yi du koy du ñam jot. amu bakkan waxtu bi waxtu bi dab dab nañu dina am juste wax la li tax nga war a jéggale. xam nga dama la wax ne ñun si rëcc rëcc lañ ñuy tooñ bu fekkente ne dañu bëgg yàlla jéggal ñu. xam nga Aboubacar radiyallahu anhu Aïcha radiyallahu anha bañ ko fa tuumaalee lañ ko tuumaaloon. Mhm. ne dafa. séq mm, ak waa mm, mm, jamono yoonu sallallahu alayhi wasallam ba mu meree li nga def la def li nga wax nii la def ne ko demal toog sa kër bàyyi ba mbir mi leer yàlla wàccee aaya setal Aïcha radiyallahu anha Aïcha delluwaat kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. xam nga ko waxoon wax ja fu mu dëkk mm-hmm. si kër gi la juddoo yaroo fa màggee fa Aboubacar radiyallahu anhu moo ko yar xam nga nu mu tudd mistax moo moo maanaam tey jii mën nañ wax ne mook Aïcha ñoo bokk ndey ak baay si waxin ndax fa la juddoo fa la yaroo fa la màggee moo yar Aïcha si kanamam yëpp mais bu mu waxee Aboubacar bi mu meree radiyallahu anhu nii nga wax la def dana mis tax génnal kër gi yàlla yebal jibril alayhi salaam ne yoon ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam Aboubacar waa jooju mu génn radiyallahu anhu na ko dugalaat këram Aboubacar ne kii li mu def yàlla ne wal taafu wal tasfaxu alaa tuhibuuna an yaxfira allahu lakum yàlla ne ko di leen jéggale di leen jéllale xanaa bëggu leen mën ngeen ñëwee ëllëg mën ma jéggale leen. yàlla aji mu ñii la àndal. waaw gis nga muñ nag mooy grade bi gën a kawe si marta bi wala yu di am. macha allah muñ mooy grade bi gën a kawe. pour martaba wala yu mën ko mën a àgg si yàlla. ku la dàq muñ gën la jege sunu borom moo la gën a jege yàlla yàlla wax na ko. inna allaha ma as-sabirin nee na man muñkat yi laa àndal kon boo amee sa doom nga def wasu si moom ax mu mm-hmm. mel nga bëggoon na mu mel mm-hmm. melu ko mm-hmm. jël ko gis nga boo ko jëlee sànni ko si mbedd mi bu ëllëgee yeddaange rek nga si am te du la neex te bés bu génnee àdduna fu mu foo mën a nekk dinañ la woo bu defee njombe dinañ la woo bu defee sofaan dinañ la woo kon jël ko rek nga muñu ko wasu si axu jaamoo ko yàlla rek ndax jaamu yàlla yombul de neex jërëjëf oustaz kontaan nanu lan ngay wax téléspectateur waree fi waaw am si ñoom mbégte rek ñoom ñëpp di leen ziar bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla gën leen jàppale yàlla gën leen sàmm yàlla gën leen aar amiin amiin ziar bu baax suñu benn xarit soxna may di soxna si Serigne Abdou Samad mu sëñ Chouaïbou radiallahu anhu ak soxna may ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, félicité Cheikh Mansour Diouf ndax jeudi vendredi mhm. samedi bi passé mhm. la doon def cant gi muy def annuel cant Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mhm. mu nekk une réussite totale ñu koy ñaanal yàlla bu baax ju taalibe sëñ Fall kanam jëm waaw te kanam jëm inshallah euh, kanam jëm jaale rek suñu ndijaay Peder Sarr moom dafa ñàkk soxnaam démb euh, ñu koy juróom bu jigéen démb mu ñàkk soxnaam xam nga loolu xal na metti yàlla na ko yàlla may xolu muñ bu baax am mbégte Eva jàkkaarloo ak yow yow. sama xarit nga fa tabarakallahu bëgg nañ lool ak euh, suñu copain Ndoye Ba naka conférence yi ak ah, conférence yi ça suñu mbëkkante bi carte générale indi indi gars yi coow de nañ bàyyi tali yi ñuy baare mais mais man man damay dee bëgg nag bu bu koor gi passé itam soxna yu baax te tedd yi macha allah ñu continuer di def euh, conférence yi parce que dafa am solo te day defar maa ngi la koy wax sànq euh, noonu laa koy waxee Mara mm-hmm. man ni wax dëgg yàlla ñun daal ñi ñu yaakaar ci alxuraan ñoo ñooñu waruñoo noppi danu war rek di waxtaan di waxtaan ak ñun mais yaa ngi wax sànq li ci jëw ni ngay wàññee sa ay baax baax di ko jëllax keneen koo xam ne defoon na ay mbiram ba pare macha allah oustaz yow itam jërëjëf kontaan nañu lool kontaan nañu dafay dafay oustaz bu architecture mbokk yi mongoog dana ree ba bëgg de ndoy baan yow itam nooy tàggatoo jaajëf ñuy ziar oustaz bu baax a baax conférence moom fu ñu ko def baax na dëgg la sauf ci tali yi dañ ko nañ bàyyi tali yi rek waaw dëgg la ko bàyyi am jàmm xel mën na koo nangu xel mën na koo nangu nu bàyyi tali bi fluide <laughs> ñu ngi may caag rek su ma génnee mu dóorati ma di ziar baax a baax an Anne sunu bàjjen Fatou Anne di bàjjen ci na ñu ngi koy ziar baax a baax mm-hmm. di ziar madame Derviche bu baax ak li nga xam ne moo di madame jum Aïcha Kassé ñu ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu ñaaña si mm. doomu El Hadj si suuri boobu di sama xarit bu baax a baax ak mm. ki nga xam ne moom di waaw ñëpp rek ñëpp sunu sunu sunu soppe yi ñu ngi leen di ziar waaye Eva dina xam nga damay faral di remercier du Bor boutique wala ma dem may boutique wala ma dem ci Axlam tey damay taxaw ci Ngone Fall daal di wax Ngone Fall jërëjëf ci abaya bu rafet bi nga xam ne solal nga ma ko mu yéene ma lool def ko ci paquet indi ko mm-hmm. jox ma ko macha allah ma kontaan ci lool macha allah tey delloo na ma xaw ma fees laay dellu xaw ma jënd laa dellu waaye daal macha allah. mi ngi nekk ci nuyuwaaleel ma rek le maire Bamba Fall sama xarit la. Bamba kooku kooku sunu maire la. waaw suñu maire. Bamba Fall bu Medina sunu maire la ñu ngi ñu ngi ñaanal itam uh, Khalifa Ababacar Sall. yàlla defal ko jàmm defal ko képp koo xam ne. wax dëgg yàlla mu ngi ci bërëb yooyu yàlla yokk leen incha dimbali itam suñu président de la république. Mhm. ba lépp yomb ci ay loxoom. Mhm. dara bañ a ñaaw incha allah. yàlla ko yàlla def ndax jiite itam jabootee dafa metti kon maa ngi remercier Ngoné May Boutique ma nga nekk ci 77 547 24 26 77 547 24 26. kooku mooy Ngoné euh, di itam Njaay mi nga xam ne fii la nekk. Ndiaye comédien joyeux anniversaire à ah, toi nit ku baax ku am xol bu rafet bu mm. woyof macha allah yal na yàlla yokk say fan bàyyi la lu yàgg yàgg yàgg ci sa kanamu jaboot macha allah Adja Rama Wade itam mi yaa dinañ ko nuyu ndax suñu soppee la suñu goro la suñu njëkkee la xarit la itam ku nuy Adja Rama Wade doo bàyyi ajaratu Ndeela Ndeela Wade mm. waaye loolu yëpp dama koy teg ci sama loxo yaayu bopp nit ku ma bëgg sopp ma lool tey am naa yaakaar ne maa ngi koy rendre la pareil muy Ndiaye Diagne moom itam yàlla ko yàlla defal jàmm defal ko askanam yëpp macha allah ñu leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla dool dolli ñu jàmm ah faaw dinaa remercier itam mi yaa nga baal ma euh, salon Béatrice kon boog salon Béa maa ngi leen di remercier bu baax a baax carte bi réer na ma waaye ma nga fële ca Fass ku fay dem rek boo ñëwee ba ci station essence bi nekk foofu rek boo laajtee euh, bu euh, salon Béatrice coiffure di gis ñoom mami ñoom Tula Ndiaye ñoom euh, yooyu ñoom ñëpp ña nga fa je vous embrasse très fort ñoom Anne-Marie fàttew ma itam euh, ki nga xam ne mooy Fatoumata coiffure madame Dieng moom itam jërëjëf mbokk yi yàlla nu yàlla def ay góor loolu daal la nu war a ñaan yàlla bu nu xaddi lépp loo xam ne rek ñu ngi ciy dugg yàlla nañ ci jële yokkute incha allah <laughs> euh, yokkute nag nitam a am ci bañ a xaddi mhm. ku yàgg ci mbir rek mbir fekk la fa te mbir moom mu bu dikkee du def lu dul gën a defal bu dee ci waxtaan wi danoo xawa a juum wax loo xam ne daal soppu leen ko wala ngeen ko gisee daal xaw naa doy waar ñu ngi leen di balu àq bu baax a baax ndax euh, li ñu ci jublu rek ci waxtaan wi mooy ñu ñëpp ñu yëkkatendoo tegandoo yal na yàlla barkeel euh, lépp loo xam ne Sénégal la nga ca barkeel sunu ay kilifa may ñu ñu ànd ci jàmm ak ngor ak teranga macha allah ba altine incha allah ñu ànd cek toujours équipe bu wareef jërë ngeen jëf ñu leen di wax excellent week-end en même temps macha